Bombardier Bombardier astagfirullah. Bo bo bo poinnya. Poinnya. Poinnya Tafatin. Tafatin ngi dox trois avertissement. Tafatin mu koy Poinnya door na. Poinnya door na ko tam coup fit ko jël Fit songu tak fitam sokko jël. Ni mi nada yépp ko waaw waaw waaw waaw waaw soo xoolee kur yi doo jël tànk bi cey Ama Baldé cey Balla Gaye kenn du ñoom boo eh, ñaar jàppante nañ tapatin jàpp na ko waaye dafa gudd ñu bëree jël na ko plaqué na ko plaqué na ko takk na ko eh! na ko jeexul jeexul jeexul jeexul la ilaha illallah boo ñaar bëri na tapatin bañ na du ko dóor tànk sa waay mbaar ja yaatal boppam dal taxawat. Tapha Tine bëri xale yaa ngi ma lool. Tapha Tine bëri Boy Niang bëri faqat na ko faqat faqat na mu bañ. da faqat. dafa diis. dafa diis faqat na ko. Boy Niang encore. xar na Boy ak Boy Boy Boy ci combat bi. taxaw. Boy ci combat bi. attention. Boy Niang. Boy Niang Boy Niang jàpp na Tapha Tine jàppul. jël na ko Boy Niang jël na ko. dafa tiis si moom attanu ko attanu ko. attanu ko heure bu defee action bo Tapha Tine day langal ay tànkam mu tegaat ko. attanu ko. ña nga sëgg ca suuf. waaye pitax yi génn guñ ca taas bi malal pitax yi génn guñ ca. déedéet déedéet dañoo jaaxle. ñaari xale yi jàppante Tapha Tine Boy Niang ña jàppante. ña ca bëre ña nga ca lang ko Tapha na ko attention boo ñaa lu muy def boo ñaa lu muy def avertissement yi koy bëreloo waaw moo koy bëreloo boo ñaa Tapha Tine na ko kor na ko ci suuf kor ko ci saaku yo te métti uppercut bi waa uppercut bi Tapha Tine ma ngi door na boo da ko bloqué boo da ko bloqué waaw oh. boo da ko bloqué imposé que bëre. mënul door. sëgg bu yàgg bi. sëgg bu yàgg bi. ñaa yàgg na ci sëgg bi. tafaatin. tafaatin du ko njët. da ko njët waaw da ko njët. boo ñaa moom fay na suuf. tafaatin njët ko pour ñu ñuy déglu. xam nga combat bi toll. ak fi combat bi toll. ak fi combat bi toll ñoom ñaara nga ca a wut fu mu jaar pour rokos waaye. Boy Niang moo féete suuf dafa tëj buntu yi ah. tere ko dóor parce que bu defee action di dóor booy bi dafay juyal ak moom Boy Niang kenn ko téye benn loxo di xeex ak moom da ngay téye sa devanture nga am ba ko ba mu taxaw nga soog a dóor mais soo téye bu déggoon soo romb doo ko ñaari xale yaa nga Tapha Tine na Tapha Tine rokkos na benn wàcc na rokkos na dóoraat faqat na ko faqat na ko Tapha Tine da koo bàyyi ak làmb ji damay xalaat booy ñaa sonn Tapha Tine moo féete yi léegi waaw da ko remplacé booy moo nekk si biir waaw booy ñaa dafa jàpp devantiru ngemb li ba pare ndengeeñ ko moo géré Tapha Tine door a jël eh daante nañ door na ko. kor na ko. waaw bàyyi na ñu bëree. da koo da dugg ci biir saako yi. booy ñaa foog mu calculer avertissement yi moom dóorante nañu. door na ko génn booy ñaa génn na saako yi. booy ñaa génn na saako yi. quatre day ñàkk day ñàkk day ñàkk. à mu def effort à moins que mu def effort. Boy Niang su méttul dina ñàkk combat bi ci avertissement. quatre nga la ci des. waaw. Boy Niang am na quatre am na quatre avertissement. rek la war a def amatul daa bëri. daa des bëri na. fi mu ne nii day jël benn avertissement Boy jeex. d'accord. Tapha Tine. dégg nga leen lu mu wax nee na su taxawee téye boppam ñoom ñaar ñëpp dañuy jëli jël avertissement ñu disqualifié war na dëgg. waaw waaw waaw waaw waaw loolu technique la waaw ndax moom amul kële am dafa daa war boppam. waaye ndax dina bëre loolu. waaw ndax dégg nañu. ndax dégg nañu <laughs> amul rajo amul rajo taxaw rek ndax entraîneur bi xam na loolu. waaw taxaw rek ndax dafaa xam na loolu. ndeysaan. Njaajaan jinne la ñuy tëgg dafa atin tëggal waa kërama waa këram la tëgg Njaajaan jinne Tapha Niang door na door droite door na ko droite Tapha Tine fayu na mu ngi ràcc écarté ay tànkam mi ngi taxaw écarté ay tànkam mi ngi koy yóbbu saaku yo moo ngi koy yóbbu saaku yo su génnaatee combat bi jeex na su gënee dërëm jaana boo ñaa ñam na ko ñamante nañu waaw ñama ñamante nañu <laughs> ku ne ñam nga sa morom ku ne ñam nga boo ñaa wala boo ñaa dóor na waaw boo ñaa jàpp baram sa kaw jàpp na sa kaw boo ñaa warul nangu tafaatin di foqante ak moom ay baaraam ndax su ko defee ëppri ki du tafaatin su ko dalee làmb ji lay jeex laa ilaha illallah da koy génne da koy génne dóor na ko dóorante nañ laa ma dina jeex doorante nañ gor na ko gor na ko gor na ko jeex na laa ma jeex na Tapha Tine na Tapha Tine na Tapha Tine na Tapha ji Tapha na Tapha Tine na laa ma ji na ko Tapha Tine na ko Tapha Tine na ko Tapha Tine door na ko au point waaw da ko génne cinq fois gam lamb ji jël drapeau bi daan na ah, waaye yaakaar naa du jeexee ci avertissement de man xalaatoon naa nag